waaw mbir bi de moom sunu maam la rek yàlla dafa dogal dañoo ñëw mu faatu biig côté Diséer dégg nga ci côté euh, côté Diséer ci la faatu bi ko andee ñu denc ko ci margo bi biñ ko dencee ci margo bi nu xëyee man maa ci ñu jàpp ci palaat bi ñu jël ko teg ko ci sangukaay bi ma muri kanamam bi ma muree kanam gi ci laa gis sikkim bi fii mu ñu ñu ko ma ñëw daal di laaj euh, sama ndijaay ma ne ko. ma ne ko li jaay mu naa ma ne ko li ma bëgg mooy ndaxam ndax maam dafa amoon ab góom mu ne ma déedéet amu ko kon ne sa yaay faatu xuma ko ci laa woo sama yaay ji ma woo ko mu ne ma amul benn góom ba muy génn kër gi dara jotu ko bi ma ñëwee sàngkat yi ñu ne ma su fekkente ne mel na li li fa daan am parce que ñoom yàgg noo gis lu mel nii mu naa ma ne ko soo yi di nga fekk loxo bay naaj ci naaj ma dem ci tànk bi fekk juróomi baaraam yi naaj ma ma muri loxo caa eh, càmmañ bi gis fekk fekk juróomi baaraam yi naaj ñun takkee woon loxo yi nii fekk naa ñu tekki ko ba benn loxo bi dafa lemu loolu nag moom la gis tey jii ci fi la fanaan waaw. moom di lañ ko indi ñoon ma ngi fi indi moom eh, jox garaj yaa ñu jox bàyyi suñu carte d'identité moom ñu lañ la ñibbi woon ñun xëy si lan lan gis loolu moom. mooy lu ci yoon lu ci yoon lu ci yoon santaane daal ñu def ko mu li ci bëgg ñun ndax lii moom mun a may ko day day mbir mënu saafara ndax soxna sii moom day soxna su jeexan ci Cheikh Ibra Fall bu wér ndax 1904 la judd woon fii mista tale téeméeri at ak fukk ak juróom benn am na ko mista tale ko kon lii doonu jekk na ñu def ko ko wax dëgg yàlla ñun ñu bokk ci ak njabootam te te taxawuñ ko ba ba ba saafara ko rawatina nag dëkkub Serigne Touba bii nga xamante ni ci lañ ko defee te xam ne dëkk bi moom daa daa sell te lépp war a la kon mbir mi su fi xewee nañ ko taxaw ba mu ba mu tegu ci aw yoon ba ba mu faju